وأن قلت من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نمشي زاد مع في خير بعد ومن فصل لا فصل في شر معاني أسمائه سيلار المعنى ترمي صلى الله عليه وسلم محمد موجي نسيو من أما محمد وآي محمد فهو مميسون مفهول ويسون مفهول من حمد موجد حمد فهو محمد dëgg ci xamite kay ni ñu waxee lu ko ndax mu daal léeg-léeg day a fas sarf na bu nekkee kese xisaal yi di aji bëri jikko alati yi nga xam ne yomaru danañ ko santaale yaa ci moom googu jógewu ci xamida ci xamada la jógee rek laa wax de xamada yu xamidun wa xamidun wa xamadun wala zaalika loolu tax kaana nekk na ablaxa di gën a jot min mahmudin ci mahmud mahmud moo jógee ci xamida mu mm-hmm. ismu mafoon sulaasi waaye bëri moom du sulaasi kooku mazid la Muhammada ci la jógee mooy ko xam na jikko yi euh, dégg sant nañ ko sant gu bëri rek de loolu maanaam dëgg-dëgg ma wala mooy koo xam ni lu baax la nekk ci moom bari na comme ni mu ko firee fay na mahmudu naka mahmud min as-sulaasi moo jugee sulaasi al mujarrad bu rafet wa muhammadu nag min mudaaf nga bu jugee ci mudaaf sula euh, mooy sulaasi buñ buñ buñ waa mudaa buñ waa bu ñu yokk ak sadda lil mubaalaxa ngir jotal wala ne luñ koy sant bëri na lool foofu la yi mooy ki nga xam ne yoxmat danañ ko sant ak sar lu ëpp ma yoxmat danañ sant xéeroo kudul moom meneen basiri ci mindee fi wala nga ne muhammadun mooy koo xam ne loo am ci lu baax ci moom la jógee mu ngi ko firee noonu lu rafet lu ne rek ci moom la moo tax mu nekk muhammad mooy ko xam ne jikkoom yu baax rek bëri na mbiram yu baax yu mat yi bëri na ba képp ko am lu baax ci moom nga ko waaye nag ay ku kuñu kuñ sant ku ne yonantu lañ gën a sant moom mel ni dafa am ku ñuy santanteeg moom yonantu kenn denut ak moom ci dara rek laa wax de bu ngeen xamee wujjuut ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngeen jëlee wujjuut googu ndax moom la yàlla njëkk a bind lépp lu yàlla bindati ci mbindeef rek ci ba yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam ci la ko yàlla bindee kooku mooy Muhammad ga loolu lay tekki dégg ki nga xam ne ni waaw mboole matiya ci moom la ko yàlla feeñal kon kuy jëlee te ci mat ci moom nga koy jëlee mboolem xam nga rek moom la ko yàlla feeñal ku jëlee te xam ci moom nga koy jëlee ko mooy Muhammad ga amma Ahmad ga mooy maqaamaam mi nga xam ne foofu min def nekku fa moom rek fa nekk di sant yàlla foofu allazi mooy ki nga xam ne Muhammad danañ ko sant ak sara lu ëpp mi ma Ahmadu sant xéeroo ko ci min def yi noonu la ko firee moom wala azali moo tax wallaahu alam yàlla rek a xam su mee tawraat tuddee nañ ko bii ci moom fi tawraat ci tawraat fi kataril xisaal ngir bëri jikko al Muhammadu si ñu gërëm yow allati nga xam ne wasifa mel na nañ ko biyaa ci moom woowu moom wa diinu ak diine moom matuwa xeetam fi tawraat yi tawraat Muhammad lañ ko tuddee mooy ki nga xam ne nii sant nañ ko sant bu bëree bëree bëree bëri lu tax ko ndax xewal gi nga ne yàlla def na ko laa wax de xataa taman naa ba mu bébét Moussa Moussa alayhi aleykum wasalaatu wa salaamu mu ci an yakuna mu nekk moom yonent bi moom Moussa minum di bokk ci xeetu yonent bi ndax xewal gi mu gis ci bokk ci xeetu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waqad atayna andi nañu ala hadal maanaa ci beneen maanaa bi shawaahid yi ci ay ànd ak ay seede mu naaka foofu ci téeram ba wa bayan naa ñu leeral xalata abil qasim as-suhayli ay su jaara bu mu defee alam bi biraksi safaan waa ne su moo ne turam fi tawraat si tawraat ahmad ahmad la waa fekk demee noonu Muhammad lañ ko tuddee ci tawraat muhammadin mooy ki nga xam ne nii waaw sant nañ ko sant gu bëree bëree bëree bëree bëree bëree gu amu tax ñu sant ko nag waaw mooy xewal yu bëri yi nga xam ne jugee na ci moom de bu fekkoon am na benn mbindeef boo xam ne moom la la njëkk a bind ñu jëlee wujjoot ci mbindeef boobu kooku kay lañ a gën a sant ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ki tax nga xam xam gi moo waral mboolem xéwal yi ki a nga xam kooku lañ gën a sant ki nga xam ne ci moom nga jëlee wujud waaye wujud dëgg ci yonent bi lañ ko jëlee waaw a ahmad waaye ahmad foofu moom ismun tur laa la zinati afaala tabdil mu nekk ci afaala tabdil afaala tabdil léeg-léeg ñu tëgg ko mu firi ki gën a sant léeg-léeg ñu tëgg ko noonu rek waaye li muy firi moom rek moom moo ko def rek waaw ni ko wax adalu fekk al lañ ci namu mooy ki mandu ki ahmad fii mooy ki nga xam ne moom rek moo doon sant yàlla ci ci jamono boobu rek laa wax de mu saqun luñ xottee laa yemate mais xam day sant waxa def talafa wute ne ahmad aji sant la wala ahmad kuñ sant la loolu la ñu wutee fa qaala mu wax taifata ab kuréel no oh, mun bi maanaa faayil maanaa faayil la kooku mooy li gën a wér nag ay hamdoo cantamli laa ñeen yàlla ak sër moo ëpp min hamdi xëyri sant keneen loo ñeel ko yonentu kenn du ko tëkkalee kenn rek moom rek moo doon sant yàlla fa maanaa wa maanaam nga ahmadul hamidina mooy ki gën a mën a sant yàlla ci way sant yi li rabbi ñeel boromam déedéet Ahmad mooy moom rek moo di sant boromam war a jëfoo dal ñaata xawle bi la wax bu mu dugg ci naxu nag dana ci yàgg lool waaye lam ci dugg yëpp daanaka rek daa wax ne ajnabi la ci téere bi bi an lëngal nañ xaatal xawle bi la wax bi an na xiyaasa afdal afal tafdil ne xiyaas la ñuy jëlee ci afal tafdil an yu saaxa moo ñu tëgg ko min fiil faayil ci jëf aji jëf laa min fiil waaqi nekkul ci jëf ju tàbbi alal maf'uul ci kañ def rek daa dafa tabdil laal aji def lay tekki waaye du tekki na kañ def buñ ne akramu teru firi du mën a firi mukk kuñ teral waaye aji tedd lay firi maanaam kii gën a tedd de kun afara tabdil loolu lay jëriñ xaaroo ñu ne wali azali moo tax laa yoqaal wax ne ma daraba afara tabdil ak feenu taajub lay wax ni dégg nga ma lu màgg màgg akrama teral na zaydan zaydu loolu la ñuy wax waa mu ne waaye laa yoqaal duñu wax maa daraba waaw dégg nga zaydan namm ci rek dóor nañ zaydu wala zaydu duñu wax zaydu addara moom moo gën a dóor min amrin maanaam zaydu moo xamar dóor yi bien tibaari dar bi boo xalamee dóor alwaaqi gaa ji tàbbi alayhi ci moom zeydun adrabu min amrin mooy zeydu moom lañ gën a dóor ci amru loolu kenn du ko wax moo daq dóor kay waaye moom lañ gën a dóor ci amru kenn du ko wax ma adraba zeydan Zayd Zayd lañ dóor dóor yu bëri loolu kenn du ko wax maanaam boo jàppee ne jëf ji daal ci Zayd la dal loolu du mën nekk wala ma ashrabuhu lil maayi du ñoo ne ma ashrabuhu euh, nan euh, euh, aka mën naan lil maayi ñeel ndox de wala boog lil maayi mooy nandal nañ ko ndox waa akaloo ak lu gën a mën a lekk lil xub si ñeel mburu fekk fekk jëf ji nga wax ne moom ci moom la daal moom lañ lekkaloo mburu kenn du wax loolu wa nax yu ak yu nag yooyu saa yuñ tëggee afaan tafdil rek waa ji moo def waaye nag du nekk na jëf ji ci kawam la daanu loolu la bëgg wax xaaroo ñu ne li anna afaan tafdil yi ndax afaan tafdil wa feelu taajub ak feelu yéemu innama yu saaxaan yi ndax dañ leen tëgg min feelu laazim ci feelu laazim afaan afaan tafdil ak feelu taajub ci laazim lañ leen di tëgg laazim nag mooy fenn boo xam ne mënul génn ci boppam di daanu ci keneen ko de ma akrama zaydan karuma zaydun rek loon zaydu tedd na na maalu teral na loolu zaydan zaydu waa wala boog zaydun akramu moo gën a tedd moom min amrin ci omar waaye mu ne woon zaydu akramu min amrin na mu ne zaydu moom lañ teral rek laa de ما أكرم زيدا دينجا كوكوم جيب جيب وغيره ما أفعل تبديل مو فهم دانو زيد ولذا هذا لموتا يقدر لنا أن نقول تخلق من فعل أكفعيلا المفتوح عيني بن فدائن كما مكسورة بن كسرة إلى فاولة جمج فاولة مضمو عيني بن دم عين من أفعل تبديل بوكي تقل ولا بوك فعل تاجو بوكي تقل فاعلة ولا فعلة waaw da nga koy toxal di yóbbu ko ci fan wala bi dam mu nekk laazim ba pare nga door ko ci mën a tëgg mu ne xaaral wax nañu li wali hada li moo tax yo adda dañ ko jàggatee bil hamza di ci hamza ilal mafool yi ngir mu mën rek laa wax de ndax moom moo aji def waaw boo ko boo boo ci yokkee mafool nag boo ci yokkee hamza gi hamza gi hamza gi dafay tekki mafool fekk hamza gi tekkiwul loolu de fa hamza doo hamza gi di tendité pour jàggati la te xawle ki ni ko sax ma mm, lu màgg a màgg asrafa teral na euh, zeydan léegi nag hamza gi moo tax nga mën a nasab mafoon bi waaye ci cosaan moom zaydu moom moo def rek laa wax de lii lépp li mu la bëgg a wax rek mooy mooy afaala tafdil alhamdulilah aji sant lay firi ahmadu dégg nga taajub daf ko cee laafaale rek ngir wane ne fi'lu taajub ci cosaan aji def lay eh, firi waaye nag soo ko xasee tëgg fi'lu taajub moom dugal ci mm, kii def eh, amza nee naa am zagu mooy tax mu mën a jaar jàggati jëm ci ma fool ma nag bu baax dana mën a am ma fool ma lu màgg-màgg a teral na zaydan zaydu waa karama teral na ay amran amru nee na am zëg yi moo tax waaw mu mën a nasab ma fool gën a laa wax de waaye waa suuma seen cosaan mooy zarufa tedd na wa karuma waaw li an al qaalu ñu ne li mu al mutaajiba ndax kañu xéemu minu ci moom faayilun faayil la fi asli ci cosaan yëpp daanaka kiiwul li mu bëgg a wax rek tafdil faayil aji def lay tekk waaye firiwul kuñ def naka noonu fi'lu taajub ci cosaan aji def lay tekk waaye nag buñ ko xasee tëgg mën moom boo ko bëggee def firi aji def da ngay jub foofu foofu mu mu war a yakkoon mu nekk ba fi'lu mu taadin mu du jàggati comme que moom ci cosaan faayil rek la am ma foonam bii kon fi'lu bi du jàggati waaw bu lu am sa gi ñu wax loolu xaaroo ñu wa amaanahu ma adraba zaydan li amrin a moom ak mën a dóor maa adraba maa lu màgg màgg adraba dóoroon na zeydan zeydi li amri ñeel amr foofu moom man xuulu luñ toxal la min faala ci faala al maftuuayni ilaa faala xam nga daraba faala la buñ ne buñ ko te noonu rak dañ ko yóbbu ci faala al maftuuayni buñ dàmm ayen gi soo dee ñu jàggati ko wala xaaral tam mbir mi ah, ah yi ñu demee mu ne ñeenti hamza nag pour mu mën a am ma fonam bii dañ ci daru bu andi hamza yooyu qaala wax nañ nga dal lay teg teel ci loolu ma ji ma indi ngeen ni bi laami ci laam fay xool ñu ne ma adraba zaydan li amrin xam nga daraba zaydun amran xam nga zaydun mën naa am mafoon bi bëgg fëgg daraba kon boo ci indi hamzatu taadiya war naa mën am ñaari mafoon bi waaye nga xamee ne daraba dañ ko toxal def ko ci faw la nga ne hamzatu taadiya mu am benn mafoon bi moo tax ñaareel mafoon bi da nga ciy dugal la pour wane ne baat bi si cosaan laazim na moo tax mu am ñaari mafoon direct xam nga mu wa wax yëpp dafa bëgg xamal ne la afaan tafdil aji def lay firi mm-hmm. comme ni nga xam ne feeñal taajub ci cosaanam aji def waaye gis nga moom bana fa afaan tafdil gis nga ñëw ci feeñal taajub di wax rek di wax rek di wax rek te feeñal taajub amut rapport ak bu nekkoon baaxee ndax dina la temps di ci jàggateem la xel dañoo ne maa daraba zaydan amran mu ne bu doon daraba da nga ko def daraba nga xam dafay mën a am mafoon bi mm-hmm. boo dugalee am sa درمان سمجھا رہے مفہوم بھی یعنی ما ضرب زیدن عمرن لانه نحن متعدد اجي جاكتر الى واحد كان بيمشي جيبهم والى اخر كان بيمشي جتاديا كان تجاكتي ina wa bos dugule am zagi am zagi moo tax mu mën a am ñaari mafoon bu dul woon am zagi benn mafoon lay am léegi nag ba nga dugule am zagi ba pare ñaareel mafoon nga dugal ci laam mooy waaye ne fi'lu bi waaw da nga ko tëgg faaw la rek laa wax de faaw la nga ko tëgg moo tax mënul am mafoon nga dugal ci am sa gi nag am benn ma fool ñaareel ba nag boo ko bëggee foo nga ni laam xam nga fala maanaa daw bañ ko jàggatee ila ma foole ci ma fool bi am sa di di ci am sa googu di jàggate ada ci lañ ko jàggatee ila axara ci jëm ci beneen ma fool bi laami ci laam waaw ndax xam ndax wala ne dañoo toxal fi'l bi ci fon la waasa li mu wala li mooy la nga wara na loom ñe an xaaru ñu wax innahu maa nako ñoom ñaar mooy afal fi'l ta'jub ak afaalan tafdil laa saaxaan du leen min feneen faay lu mooy ci aji jëf laa min feneen waa xëy nekku si jëf ji taberan ma ci ma afaal temps jub daal aji def lay tekki moo tax bu ma akrama zaydan na mu na mu ci na mu ne zaydi laa wax de laa wax de dégg nga <coughs> laa wax de loolu firi ci saal mooy lu tedd Zeyd kon da nga bëgg wax ne Zeyd nga bëgg wax a Zeyd nañ ko teral guddi yëngatu la parce que ku tedd rek lay firi loolu bi aslan <laughs> waaye nag boo xoolee ma xool na ah. xam nga bëgg wax ne loolu la njëkk wax ci commencement bi ne mën a wax ma dara ba xaw ma lan Zeyd xaw ma na mu sene dañ koo dóor mm-hmm. maa kër ma Zeyd na mu sene dañ koo teral maanaam Seydou ku teddal rek lay firi afaan tamit aji aji def lay firi kon ñii lii leen laye ñu ne afaan tafdil mooy Ahmad ki gën a sant yàlla waaye firi wut ki gën a sant na afaan tafdil ki gën a def lay firi wanaa doo mu xëccoo ñoom bisaar gi suru àqaroona ñeneen ñi ci hmm? xëccoo gi dana sant وقالوا ان يجوز هذا كان سوغ ما تغل من فعل الفاعل كي كيف من واقع التابع المفعول كان جف <laughs> من منافير كيف منافير كان جف ما افعل تعجب افعل تفضيل وكسر في السماء بريك ديغ بيتي من ابين اديت من بوك تكتل يغنى لير على جوازي تي دكنا نا ديغ نان عرب ني وخ لول تقول دنا على عرب ما اشكله انا لوكو غنا ما اشكله سوخلال نانكو بشي سي دار من لي فير كون نانكو soxlaa nekkul moom moo soxla lool woo moom min suxila moo jugee si suxila foo mashgulun kon soxlaal nañ ko day fir wagaza no yàqul ne ma awlama bi kaza xiir nañ ko ci lii kon muula on la nekkul ne moom mooy aji xiir dañ ko xiir o moom min aulia moo jugee si ko bi si dara foo muula on bi xiir nañ ko ci mabni lil maf'ul laysa nekkul illaa lu wala daal nag ñoom xawlum seen wa ma ajabu bi kasa ay onjiba bii yéem yéemloo nañ ko kon dañ ko yéemloo foofu waaye nekkul ne moom moo yem foofu mu min onjiba bii waaye xool ma ahabu ilayya dégg nga maanaam moom lañ bëgg xam nga ahabu ilayya mooy firi moom lañ bëgg foofu moom taajubun yéemu la min feneen ma fawri ci jëf ji daanu ci kaw waaji moom lañ bëgg wa kaw noo ak nekk mahbuban di kuñ bëgg la ka ñeel la wa kasaay ma abxadu ilayya mooy ak maa ko bañ kon moom lañ bañ neku momo bañ wam qatuhu ilayya moy ak mako bañit kon neena deg lañ ci arab ñu tegg afan ta fin le temps djub fek kañ def lañ ci mom na mu ci aji def هنا وهنا في امن مساله مساله مشهور بسيو ذكرها سيبو وي سيبو وي كيدنكو وي موم انا كن يو تقول دنگ ما ابغدني له موي اك ماكو باج بو ديفه له موي ماكو باج وما احبني له اك ماكو بغ وما أم قتني له ما أكماك بني إذا كنت بونيك أنت يا المبغض يا أجي بني الكاري يا أجي والمحب يا أجي بق الماقت يا أجي جيب نولي في بني له فتكون منك متعجبا من فعل الفاعل فك يا دف وتقول لما ما أبغضني إليه فك موم فمور بني وما أم قتني إليه أكموم جيب وما أحبني إليه أكموم بق إذا كنت بونيك أنت يا البغير يا أكين بني المنقوط يا أكين جيب أو المحبور يا أكين بق fata kon mu nekk mu temps jiban diruñ yéemu min fenel waaqi si jëf ji tàbbi fenel bu tàbbi la ma foon kon boo jàppee ci wax ji dafay mel ni afan a man naa fekk yow lañ def mën naa fekk yow yaa def ma daraba zaydan ma zeydu dóor ko ak ñoo ko dóor ma daraba zaydan mooy lu ko dàq dóor rek maanaam moom moo dóor fa maa kaana ku nekk bi lu nekk na bi laami ci laam fa wóoril faa boo defee maa ahabani lahu yaa def wa maa kaana bi ilaa bu dee ilaa la foofu walil maful maa ahabani ilayhi mooy yow lañ bëgg kon loolu sew sew la ci arab waa ak saru nu xaati ñu ëpp ci ñu bëri ci ñoom nax laa yoxali loonu duñ defal duñ layal bi hada ci lu tax maa ahabani lahu <coughs> mooy ak maa ko bëgg maa ahabani ilayhi ak moom moom bëgg xam nga kon ki bëgg yow foofu mafool nga fa yow lañ bëgg fee faayal nga fa kon avant tafajtan jub dana yore ñaari maanaa yëpp luy luy différence bi wala si li nga xam ne yuqaal la ñuy wax fi alati ci layo wala alam inna laam naka laam takun dana nekk lil faayil ñeel faayil fil maanaa ci maanaa laam moom boo xoolee aji def lay firi naa wax qawlaka li man haada ku moom li fa yuqaal li zayd qad huwa malik fa yutaa ñu indi bi laam wa ma ilaa fa takun day nekk lil mafool ñeel mafool fil maanaa فتقول إلى من تسير هذا الكتاب تير بيجي كان لجيم فتقول إن إلى عبد الله كن تير بيجي موم لجيم وسير ذلك مبوتم لول ما أن الله من الله في أسي جسان للملك نيال مومي والإحساس أك جاكو كي موم موي كي موي كي كي خمنا موم نياري مو خوني فايل ولا سيخاف أك يلو يلو ذا إنما يكون نكدا نك للفاعل نيال أجي دف الذي كان خمنا يملك ذا موم ويستحق مو يلو وإذا إلى لانتهاء الغاية لفيتك دوب جيخ الرواية دوب والغاية منتهى ما يقتدي ما يخلو غاية ذلك وراء الفعل جفجي في يمون بالمفعول في مفعول دائم ما في جفجي ذانو كل مفعول أجي مؤمن لهم ويكي يخلو ذلك موكرين بني يعني مم ليتك ما روين اللام ما يادف يا بق ما أحبني له يا بق ما أحبني إلي يولين بق كن إلا فهو مم في يمون بالمفعول في مفعول أليقوم وقنا يلا لأنه نحن Mm. ñaan noonu ndax moom tamaamu muqtadal fi'li mooy matak sàkkuwaayu jëf ji jëf ji fam daanu foofu lay mbir mi mate wa mene taajub bokk na ci yéemu min fi'li maf'ul fekk kuñ def la xawlu Kaab bun Zuhayr Kaab bun Zuhayr ba mu wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom laa gën a moo gën a raglu عندي فمن إذ أكلمه جمال ما يوحمهم أخوف في دفع مني ما نام خيفة رجع يفنينكو لا جوكي فهو مم مخوف دين فهو أخوف أخوف عندي مو جن رجلو فمن إذ أكلمه ما يوحم وخير إنك إنما يوم محبوس كنت له مقتول كن رجع من خادر إنتي جن من ليوت الأصدي تي جنبار جن إيجا خن مسكون سندك ببتنا عصر مو يقر عصر غيل نقول له جو خم نقول ما يبرب بسق دينو دونه ويس نقول غيل من فأخوة ها فأخوة فهاونا في من خيفة من يجي خيفة رجل يفنكم وينتم سألهم فمهم مخوف كن رجل كن أخوفه مو جنا waaw ragal gi ci kaw kambu la daanu laamin xaafa ci xaafa ana axoofu maa gën a ragal sorewut de hmm? ah, waaw nga dégg nekkul ne moom moo def yonent bi lañ ragal kon moom noonu li majhul la ragal gi ci kaw yonent bi sallallahu alayhi la dem waaw moo ragal kum ragal yonent bi foofu nekkul yonent bi moo ragal foofu moo xool la dégg nga wa gazaale xawlu maa ajana zaydan min junna foofu majnun maa ajana zaydan lu gën a dof zayd dof gi ci kaw zayd la daanu junna la ji jiire dof loo nañ ko foo maj nun ma ajjana zéere mooy ku dof la daal hagal yi mazhabul kuufiyoon nag mooy gërëm kuufiyoon woon waa fa xom ak ñu dëppoog kon ñoom boo jàppee ñu ahmad mën naa sant boo jàppee njëkk nag aji sant rek la mën a firi afala tafdil daal ak fi'lu taajub daal ñu ne mën naa firi kuñ def ñu ne aji def rek la mën a firi لا يلزم التلك يريد الإسلام واستعنت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت فليونيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته